aus billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy topp ci sit internet bi di 24 actu yi fi ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp ci waxi sëriñ Tuubaa yi ñu desiwaat ci ak yéen mas naa am ay gan yu ñëw ci sëriñ bi muy wax ak ñoom ne leen na ngeen man gan te bu leen tëla dëkkandoo ñu ne ko fas nañu ko yéene sëriñ bi ne leen ndax xam ngeen lan mooy man gan ñu wax ko lañ ca xam sëriñ bi ne leen nuru na ko waaye du moom gan mooy guddi ak bëccëg man gan ci ñoom nag mooy fexe ba doo def ci ñoom lu lay rusloo fa sa boroom mu waxaat leen xam ngeen luy tëla dëkkandoo ñu wax ko lañ ca xam mu ne leen nuru na ko waaye du moom dëkkandoo mooy raqiib ak atiit man dëkkandoo ci ñoom mooy fexe ba duñ la bindal dara lu lay rusloo ëllëg sëriñ bi nee na am xëy bu rafetul dañoo war a fas jom cim gont daa ne am xëy nag mooy ak ndaw li ci ëpp du rafet ngir jëfi ndaw yi am gont nag mooy juróom fukki at jëm kaw sëriñ bi mas naa laajte lan mooy bitim réew ñu ne ko xanaa mooy réew mu dul sam réew mu ne déedéet ndax àdduna ku fi nekk yaa ngi ci bitim réew bitim réew nag ku ci nekk dangay am fulla ju doy ni loo am yónnee sam réew loolu ku ko bàyyiwul bu demee ba dem sam réew boo yorul dara itam loolee nga daa yónnee danañ la ca teral waaye boo dul yónnee dara boo demee doo fa fekk dara kon mbokk yi ñu topp ci seen internet bi di 24actu ñu ngi leen di wax ni bu leen di fàtte ne di abonné suñu sit bii di 24actu di leen jox dig daje wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu